rajab bi ñu nekk nag gis nga ku ci yor benn fan référence am na téere bu wax sirku jawaayir sëñ tuwaay defar na ko am na bu wax lubbul albaab si Ahmad Tidiane Sërif mu mag ma ca Faas moo ko defar soo demee ci ñoom di nga fekk seen téere yooyu ñu ni benn fan ci rajab moo tax keneen ko wax leen du la dégg ndax ñooñu la gën a koo xam ne woor nga ko suñu borom jéggal na la bàkkaaru giiru dund dana boole ay malaka ju bind la tiyaba jo xamni ni ba weer wi del si dewel malaka dañuy sonu ci bind bi suñu borom ni bayyi din ma fayal ko sama bopp assis loolu loolu kéemaan la soo defee deuxième sour ci rajab imanan waqti saban da gëm yalla rek tax nga xam ayo ci ay benke ñenke rasulaay nee na bu ëllëgee bu ñëpp dekkee su may départ jëm fa ñuy kii dama la naa kaa ñu àndandoo. assis ah, loolu loolu doy na wa hmm. yonte bi lëng la nii ndaw assis mën a tiitam <laughs> ku mu romb laa naa duma sama romb sallallahu alayhi wa sallam yàlla la ko defal amiin assis ku hmm. eh, ko tàccu nag deuxième jour boo ko wooree yaa ngi may ànd nee na cérémonie boobu ñuy def di nga ko fekke ëllëg ci àjjana xam nga am na taksi am na benn soirée yonte yàlla daaw daa koy woy baat borom baat bu neex bi hmm? yonent yépp toog wali yépp toog gaa yu baax yépp toog getaar yi tëgg booba moom nii ayu fa mhm. xam nga fii lañ koy bañe ko seen xam defee ñu ne waaw suñ si moom waaye bu dee fee nag moom ñëpp a yàggaayu foofu la affaire bi neexee boo wooree deuxième suur bii ngir yàlla ba jant so dañ ko dañ ci bokk ku def trois suur ci rajab kenn ku la gën lu mu def ci kaw suuf amut ku dul ku def li nga def suñu borom dana mbaa yàlla naa la yow xanaa ka yaa koy génn yow dugg ci leneen waaye yàlla toppatu la dara noonu la ko toppee ba fukki fan yi mat kooku mooy jackpot doo kon maa ngi ñaan sama mbokk yi ci seen bi dama yéene leen jàmm ku mën a woor ci rajab ji ñetti fan na nga ko def boo ko mën defal ñaar boo ko mën defal benn kado bu rëy la benn guddee ngi ci guddee alxames lay doon bum don nak baxna bala wer wer weer bu wer bi jeexee mënatoo toko def fan yi ma waxe rajab la la concerné bu wer rajab passé bokku comme comme comme fay fat nim nek dar ñen ñeent ajuma ci wer ko rek ndax mënatoo toko def lima wer wer rajab rek la concerné gudi al manam gudi al khamis bo julé timis ba pare ngeen préparé ko bala nga julli ge nga nak def 20 rakka ben rakka bu nek ben fatia ben lexlaas lay doon dégg Allah ma allahu akbar jàng naa fati jàng naa lixaat sëgg naa allahu akbar fati lixaat sëgg naa taay sëlmal deux jàll na kon dix sëlmal lay doon vingt rakka lay fati wax ma ci dolli leneen benn lixlaas tam daa wax il est trop facile def nañ ko daaw ma kado baa ngoog wax ne boo ko rajab rajab jël si borom nee gis nga feebar yu nit da ko wax da ko baras gana siti cancer cardiaque sa dum ci ne ba wer wi dusi si yow la dal assis ñu ko loolu rek mune dedet ni nga arrêté sa bop non nga arrêté sa jabot yow mi ko defew sa famille bi leeroon euh, coronavirus bi mom day tegg seen kër yàlla moo baax yëpp ay système la yox yalla andi pour ni jaar leen ci ngeen ñew ma may leen kon alxames bi passé na mais bi di ñew gaa yi préparé leen ko ku julli timis rek defal ñaar fukki rakka naafila ak ko jaamoo ko sa ñaan ko nga xool Fatiha dis ak dis mu nekk xam nga deux deux la boo amee dix vingt la moom lay doon mais waxu la ginnaaw boo julli timis rek la wax su passé bokkatoo mhm. ba beneen nati su weer wi jàllee waxatu ko ah. kon da ko ci weer wi da ko codé ci alxames ci boo jullee timis da ngay